sant yàlla julli ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah di leen gën a ñaax rek ñi góorgóorlu ci wi weer bu baax a baax ñu xam ne daal weer wii mooy weeru xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax lépp lu ci waay doon góorgóorlu na ko gën a yokk lépp lu waay doon jaamu yàlla rawatina ci wi weer na ko gën a yokk macha allah ndax jëlee nañ ci Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne yonente bi ma wax de bu fekkee ne yeewoo na kenn ci yéen ci nelawam ci weeru koor ah yàlla dogal nag muy walbatiku ci ndeyjoor di walbatiku ci càmmooy xam nga du yeewu nga rek jóg nga ndax léeg-léeg nga walbatiku ndeyjoor léeg-léeg nga walbatiku jëm càmmooy ci waxtu woowu nag am na malaaka moo xam ne moo lay wax ne jógal yàlla barkeel na say mbir yàlla yërëm na la jógal yow jaamu yàlla bi yow mi nga xam ne yaa ngi taqoo teral weeru koor jógal malaaka mi lii lay wax bu fekkee ne jóg nga nag ame yéy ne julli xam nga yeewu nga jóg nga malaaka mi ne jógal yàlla yërëm na la yàlla barkeel na la boo jógee nag am yéeney julli lal bitim bi nga tëddoon moo lay ñaanal ana lan la di lal bi di wax boo ko déggee boo ko déggul ee yow yàlla yan nanga jox ëllëg ci lal yi nga xam ne ñoo gën a màgg ñoo gën a yëkkatiku yan nanga ko sédd ci lal yooyu ci aljanna ya lii la lal bi lii la lal bi di ñaan bu fekkee ne tim jóg nga ci lal bi xam nga dangay ngay sol sa yëri nga sol sa yëri yëri ñu ngi lay ñaanal boo ko yégee boo ko yëgut ana lan la di lii ana lan la yëri yi di wax ee eh, yow yàlla yan nanga ko may ci kaddaayal aljanna ëllëg yan nanga ko ci kaddaayal aljanna yi lii la lal bi di ñaan lii yi di ñaan yëri yi lii lañ lay ñaanal bu fekkee ne sol nga sa yéri gannaaw sol sa yëri li ciy topp mooy sol say dàll la boo solee sa ñaari dàll yi dàll yi ñu ngi lay ñaanal boo ko yégee boo ko yëgut rawatina ci weer wi lan la lan la ñaari dàll yi di wax allahuma sabbit adamayhi ala shiraadi yàlla yan na nga saxal ndëgguwaayam ya ëllëg buy jàll ci cunkóoru siraat buy jàll siraat ëllëg yow yàlla yan na nga saxal ndëggoom ya ci siraat yan na bum daanu yan na bum rëcc lii la dàll yi di ñaan ku nekk xam na ne siraat lu raglu la waaye dàll yi lii lañ lay ñaanal yàlla yan na nga ko jàlleel ëllëg siraat bu fekkee ne nag jël nga satala si bëgg a jàpp satala si ci boppam moo lay ñaanal satala si mooy wax ne yàlla yan na sedd ko suba ci kaasi aljanna ya yan na nga ko sédd ci kaasi aljanna ya bu fekkee ne nag jëm nga di jàpp gannaaw satala si yëkkati nga ko satala si ñaan na léegi nag yaa ngi dugg ci jàpp mi jàpp mi tim boo jàppee ba pare duggaat ci néeg bi néeg bi ci boppam moo lay ñaanal ana lan la néeg bi di wax yàlla yow yan nang ko seetal ci bàkkaat ak i moyam yan nang ko jéggal yow yàlla yan nang ko seetal ci bàkkaat ak lépp lu mu fakkatalu yan nang ko seetal ci loolu yan nang ko jéggal lii la néeg bi di ñaan wa ida qaama ila salaati bu fekkee nag ne taxaw nga di julli néeg bi ci boppam moo ñaanal yàlla yan na nga yaaxal xabroom xabroom fi mu tëdd yan na ko yaatal yan na nga def leer ci bàmmeelam yan na nga yokk ci yarma sa yarmaande yow yàlla yan na nga yàg sa yarmaande ci jaam bi lii la néeg bi di ñaan yàlla yan na nga ko xoolee bëtu yarmaande wa yaqulu du'a buy ñaan yëkkati loxoom yàlla ci boppam moo koy wax ne eh yow sama jaam bi yow de yaa ñaan waaye man maay nangu yow de yaay farag ñaan waaye man maay maye yow de yaay farag jéggalu waaye man maay jéggale kon nag nekk ci moo tax boo jullee ba pare bul yekkamti ñaanal yàlla yàlla ne yaa farag ñaan man maay wuyu man maay nangu yaa farag ñaan man maay maye yaay fa def ay istixfaar man may jéggale lii lépp ñu koy xamee ci teraangay weeru koor kon nag yan nañu yàlla may barkeb weeru koor yan nañu yàlla nangul suñu weeru koor yan nañu yàlla jéggal lépp loo xam ne fakkataloon nañ ko ci yan nañu ko yàlla déggal ci barke yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk na góor góorgóorlu bu baax a baax a baax nga jàpp say lemmiñ wala nga jàpp sa lemmiñ lay wax jàpp sa bët jàpp say tànk jàpp say loxo lépp rek nga wutu ko ngir topp ndigalal yàlla ngir bay tere yàlla kon nag yàlla mi nga xam ne ku mu dimbalee nga man yal na yàlla dimbalee ñu ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ñu sante yàlla julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ah, di leen gën a ñaax rek ñi góorgóorlu ci wi weer bu baax a baax ñi xam ne daal weer wii mooy weeru xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax lépp lu ci waay doon góorgóorlu na ko gën a yokk lépp lu waay doon jaamu yàlla rawatina ci wi weer na ko gën a yokk macha allah ndax jëlee nañ ci seydina umar radiallahu anhu mu ne yonent bi moo wax de bu fekkee ne yeewu na kenn ci yéen ci nelawam ci weeru koor ah yàlla dogal nag muy walbatiku ci ndeyjoor di walbatiku ci càmmooy xam nga du yeewu nga rek jóg nga ndax léeg-léeg walbatiku ndeyjoor léeg-léeg nga walbatiku jëm càmmooy ci waxtu woowu nag am na malaaka moo xam ne moo lay wax ne jógal